Marème Niaï, coordonnatrice des femmes de PASTEF Thiès département di jiital ci cadre yu nuyoo cadre yu le jëmale ko ci bépp sénégalais bu nekk ci biir réew ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi di nuyu frères et sœurs patriotes yi nga xam dans la région de Thiès plus particulièrement dans le département de Thiès di nuyu suñu sympathisants yi di leen nuyu di leen gërëm yéen journaliste yi ngeen xam ne yéen a wuy si woote bii tey ngir tas xabaar bi nga xam ni wala kàddu yi nga xam ni moom lañ fas yéene jàllale tey ji jotaay bi nag li ko waral ñëpp xam nañu ko jotaay la boo xam ni tuuma lu rëy lañu jël teg ko ci gor tuuma lu rëy lañu jël teg ko ci kii di président Pastef les patriotes di Ousmane Sonko te jamono ji nga xamne ne ñi ngi tek tuuma ci kawam rew ma ngi jankonté ak mbass mu metti ñu romb 700 mort geej gi jël xalé yu bare bare bare ñop 500 corona bi dugg ci école yi suñu doomi di wéccante ay masque di abalante ay masque respecté wuñu protocole sanitaire moment bi nga xamne ne tek tuuma bi ci Ousmane Sonko moy moment bi nga xamne sénégalais ñi ngi jaxlé di wax suñu calendrier électoral suñu calendrier républicain suñu élection locale kagn la kenn xamuko ko moment bi nga xamné lañu tek ñu tuuma ci ki di kaw Ousmane Sonko moy moment bi nga xamni ñi ngi tej sénégalais yi gor li nga xamni ñi ngi daan daan doole ñu tej leen gor yépp son gor yépp jaxlé moment boobu la ay nit taamu ngir jël tuuma lu reuy li ko ci gor Usman di Ousmane Sonko té nak tuuma gi li ci gëna metti moy ci kiñ ko jaaralé en tant que jigen ma ci addu li tax ma ci addu moy dañu jël jigen utiliser ko dañu jël ay jigen def len ay instrument dañu jël ay jigen mat def len matériel pour lan pour xex nit loolu la tubab di wax lâcheté man dama ni dajé Ousmane Sonko dañuy ak mom frontalement waye dañu jël jigen mama bi nga xamni ñi ngi xex pour ak ak yelleefu jigen ñu respecté ko samonté ak mom mama bobu lañu tamu jël ay jigen di leen defloo liggéey bu ñaawa ñaawa ñaaw kon képp kuy jigen au delà de Ousmane Sonko lolu sa combat la wara nek ñun duñu instrument kenn ñun duñu matériel kenn ñun duñu objet kenn képp ku ñu bëgg a def objet joxoñu suñu gëdd joxoñu suñu kër suñu cër te loolu suñu combat la jigéen ñi bu lii weesoo dinañ ko xeex ñu jël nag ay jigéen làqatu ci ginnaaw ay jigéen ma tuddee ko lâcheté pour xeex ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko ki nga xam ni bu ñuy wax opposition debout moom moo tax ki ñu tuddee la chef de l'opposition te mu koy bañ kooku lañu jël tuumate ci kawam ki nga xam ni def na 15 ans de service alal yëngalu ko alal fëkk ko mu set wecc ay loxom set wecc weex tàll kooku la ñu taxal tey waaye nag ndax Ousmane Sonko ku moom war a ragal ndax leer na ni Ousmane Sonko fi jaaroon Ousmane Sonko du ku exiler nuitamment Ousmane Sonko du gratuitement Ousmane Sonko ki

pexe bu dul pexe ji ne teg nañu ko pour dal ci kaw Ousmane Sonko ak Pastef les patriotes mu tëx waaye yaakaar naa ne bii moom defarate rate ñuy xam ne ni ginnaaw manifestation yi ñu amaloon altine bii passé suñu ay ndaw ñi ngi ci prison yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi leen di maltraité ñuy interpellé organisation des droits de l'homme ñu wax ni xale yooyu toll ci ñeent fukk ak benn nañ leen taxaw ndax nag nit même bu tooñee war na am ku ko taxaw sàkkantuma ak ba mu tooñewul li ci des mooy procédure bii ñu dugg muy dindi immunité parlementaire kii di honorable Ousmane Sonko. lenn rek lañ leen di ñaan nañu ko teg ci yoon ndax bu ñu ko tegee ci yoon ñun tiituñu ragaluñu xam nañ ni suñu candidat amul lenn lu muy lu muy reproché wu. donc un demande un traitement équitable de ce dossier. Nous sommes comme nous ko Ousmane Sonko Nous nañu uniquement ci rapport bi ñu produire les dernières 24 heures bi nga accusatrice bi lañ ko rapport rapport ko laal ndax bi nga de facto suñu accusé bi ci des moy nañ jël en compte déposition bi nga ñi ngi sàpp nañu ko déglu ndax bu ñu ko dégloo dinañ xam fu dëgg féete bi ci des mooy déclaration témoin yi nga xam ne ñi ngi woon ci lieu lañ leen déglu bi ci des mooy accusatrice bi ci boppam nga xam ne moo waral coow li dañuy ñaan ñu déglu ko ndax boobu ba léegi mi ngi ni pat kenn xamul ci moom dara xamuñu mu ngi ci réew mi xamuñu génn na ci réew mi waaye nañu ñaan ñu déglu ko loolu yépp pour wax ni procès bi nañ ko teg ci yoon li ci des mooy wax que ko sànq sama du Ousmane Sonko du xex pour disculper Ousmane Sonko dañuy pour la vérité dañuy pour la justice dans ce pays dañuy xex ci comploteurs yi nek ci di la xex te yakarna xex bobu sénégalais yépp la doon li ci Ousmane Sonko suñu candidat mom lañu japp ni moy suñu candidat ba 2024 moy suñu candidat inshallah. té yaakar yaakaar bu amé benn nit benn nit benn nit bo xamné ne tey jii mën Sénégal ci guute gi mu nekk Ousmane Sonko la donc c'est le c'est le combat des patriotes mais aussi c'est le combat de tous les Sénégalais pour libérer ce pays xéxuñu xulowuñu yéwuñu fitna mais nak dañu ni procès bi dañu ko teg ci yoon ñu xam fu dëgg fété ndax buñ ko tegee ci yoon Euh, yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul loolu la ñu woon nañu ñëw partage ko ak yéen tax di leen fàttali nag loolu yaakaar naa jarul ñu leen koy wax on est pour ce combat te lu mu laaj incha allah dinañ ko ci def muy tey muy ëllëg muy ginnaaw ëllëg lu combat bi laaj rek ñun les patriotes du Sénégal département de Thiès pare nañu pour def loolu pour setal suñu lider bi de la président Ousmane Sonko. Chers patriotes du Sénégal, de la région de Thiès et particulièrement du département de Thiès, chers frères, chers sœurs, chers journalistes, aujourd'hui le parti PASTEF Thiès département a tenu à faire un point de presse afin de vous entretenir de la situation actuelle suite aux récentes accusations visant le président Ousmane Sonko. Il est regrettable à l'heure où le pays vit des heures sombres à cause de la pandémie, des complots nauséabonds soient, soient ourdis de toutes pièces contre le leader de notre parti, le président Ousmane Sonko. Au moment où l'école, le système scolaire sont plombés par le déficit de corps enseignants, des accords non respectés, pendant que la corruption est devenue une plaie infecte dans un pays à indice de croissance quasi nul, nos dirigeants s'illustrent encore dans la guillotine des opposants. Aujourd'hui, le Sénégal en, a mal, la démocratie sénégalaise a mal, ses institutions à genoux, l'état de droit bafoué avec un calendrier électoral piétiné. Nul besoin de revenir sur ces cabales fomentées de toutes pièces par des euh, cherchant encore une fois à anéantir un des seuls opposants dans ce pays. Il faudra malheureusement chercher plus gros pour entacher la réputation du président Ousmane Sonko. Depuis la plainte versée partout dans les réseaux sociaux, par le pouvoir, nous assistons à plusieurs tentatives d'intimidation et de baillonnement. Le coup de violence exercé par les forces de l'ordre est déplorable et anti-républicain. Des jeunes citoyens ont subi des arrestations arbitraires et un traitement physique inhumain. Ils ont été maltraités dans les locaux de la police sans assistance aucune nous rappelons à l'opinion et aux organisations de droits de l'homme que ces jeunes méritent le respect et la considération qui à leur euh, dignité humaine. Le parti pastier Thiès département prend en témoin l'opinion et le peuple sénégalais exige le respect de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko et que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle avec toute la responsabilité et la légalité qui s'y est. Nous souhaitons que l'appareil judiciaire s'illustre par un traitement équitable et transparent de ce dossier qui est en cours, encore une fois, on le dit, une tentative d'élimination du chef de l'opposition. Nous exigeons que tous les éléments à charge soient mis à la disposition des avocats de l'accusé. Nous réclamons le respect total de tous les droits de notre leader et un traitement digne de son rang. Dans le siège des avocats du président Ousmane Sonko, nous demandons au président de l'Assemblée nationale de faire recours au seul rapport médical produit disculpant de facto l'accusé et de prendre en compte la déposition d'un témoin ayant cité une responsabilité très proche, une un responsable très proche du pouvoir, des déclarations des témoins et de l'accusatrice. Loin d'évoquer des représailles à l'endroit du pouvoir, nous tenons cependant à afficher une position ferme qui, quant au respect strict de nos exigences et des droits individuels du président Ousmane Sonko. Nous, PASTEF Thiès département, sommes engagés à nous défendre avec notre jusqu'à notre dernière énergie pour défendre la liberté et la vérité. Nous serons prêts